anan bay barahama jaram الليل ذات Thank you.

كل الحق فين صدان سيدي برهم bu jub ne yàlla yónni ka mu daan yónni kooku la di waar kul la yow na soo daan bàyyi baram yàlla yónni ka mu daan yónni kooku la di waar atte ñëw na soonan ci di barham ma mat soobu ndaw warloom ga gën a hay jaane sinanga mahjobi wattu la nongoy ci di barham ki daan garde suuf seeg asamaan si am leen ci moom teggin max jobi xam ngeen na pexem noon moom mooy na baraham garab gi raw na woy naa ko lafiya na duniya simbaañu guy guróoy ko boy boy baraham suma nampoon arab mbaama sañ leen wa tay li bay doon suuf si tappook asamaan si si di baraham jëmmam ja maase na jëmmi xut bu bay wax ñu ko doon Cheikhu Tijaan dañuy iidoo bay bala amaa baay sëriñ am naay max job yi dof ngeen ndoxam essence bi ko fayee daay dafay yokk daay ga doole moo baraham njar nga ji liw ba way na wasam soo bëri leer fu dee abi ñu doon jabaral sëriñ baraham naay ba yàllay dee sëriñ baraham ca mul ko malakoon ko fekkee wutoon bul wedeeti baraham bëtam bu jekk ba bu ko xoolee ca kaw asamaan mul koog malakul la ca biir wër na baraham baay bi neem wa day dàq saytaane te di roose leer Ibrahima Diouf tagal masa baay baga baraham ne mi lemal tabawiya an bashawi muñ jibil taxal na kër Maamut Sidi Barahama allarbay gàddaay ka bañu merloo baram Abdalaay jinne njanaaw naawee fo waylun nekk yor xeer walan gala dundoon ndaw ba Sidi Barahama jimmi fii bee nga naan Barahama muñ loo ku ñeme ya mooy lekk Sidi Barahama yoonu ndaka لكنا لبيك برام ولا لقلم ما ينمسيا شربايا مم عجيب فريد كجرف لك سيدي فيني نانكو يوني نجم سالو شربايا ماي ajjem Quran Seydi kañ ngay ñëw donte kon nga xam ko ni kon dang ma fekk Saalum Seydi Baay Seydi Quran laaw aalamu yàlla ñoom ne la fu ko neex lay denc mbootaw Seydi Baay boobu la suñu naan de laxa saayu daal di gàttu mbaal ga ndeysaan tàggoo jolof jëm ci Saalum Seydi keroog ba mu wàccee biir Saalum lañ ko sànceel ñeseen buram mayam fal ko xaadi suñu baram bam fa boo sànci tàkk Malick jëmee ca naa baga kabar ko ba mu soobu biir kay suñu baram bam fa boo wàcc kër Samba toog du fukk lu Seydi ma ngay ñaan ci yàlla ak yónneen baay Barahama Ibou Diouf ne atim ba ko fekk kër Samba nan ko Haji Abdou Seydi way na woyal bambu Seydi Barahama Barahama keroog ba mu wàccee biir bambu gàddi fetal noon ya ramu ñële ñaamu tuubal Seydi Barahama léegi jumbi mbal gi jàppule yësal mbal ku leen aji yasbana fi man madbar amay nara ganaar ba doon cay maqaama ibnu maya ba di ko tiitooroo si kaamil sidi marhama ibne dañ ko tong tongal daane ko ci mbedd ma naan ko uhuruñ génnal kër gi yow mi bañ seex nooni laara laawo ibnu mayaaba miri nono seex yàlla lam ci géej woyu suñu baraham ma ñàkk teggin teggi àjjana torox na ta alku martabay se gaw koy dal sidi baraham may ji kay sëñ bu ko kuma tooña doxon nen ba sorox jàngi leen foo doy réer la ni bu ko lëg lekkee bañ jiboo ngi ceeram lu mu la bu ñu dajee duñ ko jàttal sëriñ Barham ku bañ baay duñ ko nuyu duñ ko jox loxo yow ma yëbaa sona yàlla bu ñu fa dajee kuy bañ sëriñ Barham ma Barham bu ñu fa dajee kon ma tàmpo ko doom daanu jaaxaal Ibrahima Diouf sim na kuy bañ wa xaadian wa taaliban wa aiba ñu ne tamit ñëw leen bi tey jiitu boobu bàyyi waxoon ñu ne tamit waaye ñëw ci buntu Mawlana Cheikh Hasan radiyallahu anhu ngir mu ñu ci bàyyi kon képp ku teew fii waxal alhamdulillah day yoon fii mooy suñu buntu ci màggal Mawlana Cheikh Ibrahima Sow di daan damay fàttaliku Thierno fii la daan toog fii moo doon wàccuwaayam bu ñu waxoon musique bi pare di waxtaan du daan jógee fii du may dañuy julli suba ba pare mu doon laazim daanaka 9 ci oto soog a dem dem Medina bés bii da ci daan kontaan daf ci daan bëgg bu ñëwaan bëccëg bi lépp daf koy waxtaan. dégg nga daal guddi ba ni muy demee. kon nag xam naa di gën a Dubaay ñëw àndoog Cheikh Hassan Deme ci dégré ju Dubaay googu noonu foog naa ne mën naa am ñun am leen dégré bonus dégré boo xam ne plus lay doon incha allah moo tax na ñu ngi sant yàlla bu baax bu ñu yàlla may ñu ñëwaat tey kon ci jàmm ak salaam yàlla leen fi yàgg a ñëw ci ak salaam ñuy tatagal ñëpp ci turi Cheikh Mouhamadul Habib ñu ci teewal Cheikh Mouhamadul Kabir ñuy nuyoo moom Cheikh Mamadou Kabir di leen ziara di ñaan di dawal làmminam ci làmmiñu Cheikh Habib ci ñaanal leen yàlla yéen ñëpp yàlla faj seen i aajo jotu leen seen jàkkuteef wax dëgg yàlla njaboot gi lépp borom yi kóllëre ngeen Thierno amul ay doom Thierno ay taalibe la am taalibe yëpp am nañ kóllëre ñëw foofu fi nga xam ne faral si Xasan dem doon dégg nga dem màggali Mawlana Cheikh Ibrahima ku fi ñëwul sax da ngay foog ne ñëwoo tey ba pourtant muqaddam yu bëri am nañ fu ñu dal ku nekk yaa ngi am dalwaay ku nekk propose nañ leen dalwaay bu nekk waaye pour nga yëg ne ñëw nga tey ba boo ñëwul fii doo yëg ne ñëw nga tey ba kon alhamdulilah waaw gis nga ci mbedd mii leen dal nii ci ëtt bi nii moo ma dàqal man pare ndax boo fi toogee maa ngi seen waay jooju nga xam ne li mi rek li mi ngi rek moo la na Cheikh Hassane Dème radiyallahu kooku nag ku ñëw ci keppaaram alhamdulilah kon ñu ngi ziare njabootu Thierno ku fi nekk yëpp Cheikh Habib mu ngi fi nga xam ne tey mooy magi jotaay bi Cheikh Oumar dégg na rakkam dégg na su neex si mu ngi fi Cheikh Baha Sida Arabi Sida Ali Harazimi Ali Tamasini Thierno Seydou Chouara njabootu Thierno gi góor yaa ngi fi ñu jigéen ñi ñu ngi ca gannaaw ñoom ñëpp ñëw àndoog. mbokki taalibe yi daan miin ci Thiam la ñëpp ñu ngi fi Serigne Dramé boo ko xoolee doo fàttaliku lu mooy Cheikh Hassan Gaye su ma ko gisee bu tey ba jotee dama koy fàttaliku ci tey ba bu njëkk nga moo daan amee carnet yi di bind liste yi dégg nga xam ne ñoom ñooy dem ci gàmmu waaw moom tey moom beneen affaire la ci moom yaakaar naa pour mën a leeral ak Dramé xam nga moom fi nekk mu ngi waaye boo ko xoolee ci rajab ni mu muuñee du ko muuñee ci beneen. dëggu yàlla ñu ziara bu baax ñu ci sa ron mag it fi nekk ku mel a Abdou Thiam ñoom Thierno Hadi Wat dégg nga al oustaz Kabir xam ne incha allah dina fi ka mooy mooy def waxtaan wi léegi mu oustaz Aliou Ndaw Serigne Ousmane dégg nga ne jàng ànd ak moom it mboolem ay muqaddamam ñëw teew ñooñu bu ñu foog naa leen mën a yóbbaale ñëpp allah ah, njaboot yëpp daal teew leen mën naa wax ne jëmmi Cerno moo fi teew ndax xol yu fees ak mbëggeel si Xasan dem seey ci Cerno te Cerno boo ko dàqee rek ci bàyyi rek nga jëm kon nag alhamdulilah ñu ngi ñaanal yàlla ñëpp demee na tawfiq di jox kàddu gi Oustaz Aliou Ndao ñun ñoo ko sàkku ci moom pour na ko lum gàtt gàtt am na ñu fàtteel fàttali soloy juddu bàyyi nañu fàttali Taïba Niassène nañu fàttali dégg nga ne Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu donte sax ci ñaar fukki la su ko defee kàddu gi demaat ci Serigne Dramé delluwaat ci Cheikh Habib dégg nga bu jotaay bi ñu ngi ñaanal yàlla ñëpp dégg nga ne tawfiq di leen bëggal tamit ne xam naa ne ku fi teewal sa aajo yàlla dina ko faj waaw ndax. sànq benn xale dafa ñëw ne ma liñ ñaanoon daaw yi jéeg man de yëkk man de sama aajo faju na ma ne ko ma ma ne ko moom it xam naa dégguma ma ne ko barke baa ngis ma ne ngi sama aajo faju na te xam naa ne kenn ki mi su aajoom faju na kon ñun ñëpp nañ teewal suñ sant yi suñ suñ suñ soxla yi di nga sant sax laa wax sant moom mooy mooy naaw yi faju na ba pare ah dem na jeex na kon boog alhamdulilah teewal suñ sa suñ soxla yëpp yàlla ñu ko yàlla fajal kon oustaz bisimilah kaddu gaa ngi buluğunun kursu maade inşallah. waaw mbokk salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. xam naa dama am laaj bu ma laaj maa ngi nuyu. suñuy sang Seydi Moudou Habib comme ni ko Cheikh Abdoul Baaxe waxee mooy magu jataay bi ñu ngi koy ziara ziaratul istimdaad di nuyu Seydi Abdoul Baaxe di nuyu suñu sëriñ nga xam ne mooy magi muqaddam yi Seydi Mouhamad Dramé su nuyoo ñooñu dugal na ñëpp mbokki wax ji du gudd waaye dana ñaari baat yu ma tënk benn bi mooy sëriñ bi dafa wax ne nañ sànni nañ ay baat tànnoon naa li bàyyi waxoon wan faaxu naa jëmee amal bàyyi wax na yàlla na ko képp ku jublu si jëriñ foofu lay tënkee sama wax waaye balaa loolu mbokk taalibe yi ku am seetlu te dama bëgg ñu seetlu may yi yàlla maye may gu ne am na bunt bu jaar jaare yonent ci àllaaxira ne na ña doon bégal xale yi am na benn bunt bu ñuy jaar buntam mbégte kon ñoom ci bégle lañ nekkoon ëllëg bu ñuy jëriñ ji bunte bu bëgg la ñuy jaaree su ma joxee misaal boobu dañuy bàyyi yëpp mu jàll noonu Cheikh Hassane Dème radiyallahu anhu wàllu yu wane lam liggéeyalee sëriñam buñ koy fay buñ koy may may ga foofu lay bàyyi ko wàllu yi buñ koy lor lañ ko loree buy fayeeku ëllëg lañ ko doon loree matériel loolu mooy soppaleku matériel mu ci mu fayeekoo ci maa ngi joxe misaal yonent Yàlla Moussa mu juddoo ñu war koo dàmp war koo toppatoo di ko puudar yàlla wax yaayam na ko jël ko nga xalaat ko ci ndox mi fa idaa xifti alayhi fa alqihi fil yammi doom ji ñu war a puudar war laa dàmp nëpp nëppal ñu jël xalab ca ndox ma nga déglu loolu nattu la dara gën ko liir ci ndox keroog bi mu am victoire ci Firawna ci ndox la ko amee ndox la dóor mu nekk aw yoon mu jàll Firawna di jàll mu rocc yéen wa na lakk kon ca ndox lañ ko nattoo woon mais doolee ndox la ko yàlla jox mu jukki loolu boo ko jëlee mu yaatu wala yu mu ne la la yàlla nattoo soo muñee ëllëg bu añ ba di ñëw ci loolu lay yàlla soppali ko mu nekk ab añ cerno nag mbokki taalibe bi ñuy tudd yàlla yi nañ ko bàyyi xel cerno yàlla may na ko fikru may na ko sukru bi siin may na ko sukru bi siin may na ko zukru zikru mooy kenn ku ne xam ne Cerno tudd na yàlla fay gi mooy xoolal njabootam moom rek laa gis ci toppam bàyyi mag ñi nekkoon ak bàyyi taaw ba ci car ñëpp mën siikal ku ko fekk ci beneen pays nañ ànd ngi dem seeti dana dem ci beneen penc amaana mag mën a sigar wala rakk wala car waaye car yoo nga gis macha allah macha allah da nga commencé ca taaw ba ci car kenn ku ne mën naa yëngal lu leen ko may mooy seen bàyyi moo dogoon ci der di siikar ba der ba tàkkatu sondeel taalu nit dana am mbëggeel ci sëriñam mais mbëggeel gi du mën a ñoral ndoxam daa nii boo ci tànkoon dellu lu ëpp ci du ko ñoral mais ndox bu àndee safara ba jël xaalu safara boo ci dugalee ganaar mu ñoral na ko jar na mbëggeelam gi mën naa ñoral danaa ci ñëw kon amoon na zikr jar na tudd na yàlla mboolem xeeti tudd yàlla yi tudd na ko yàlla tudd na ko ci làmmiñ tudd na ko ci xol tudd na ko ci ruuxu tudd na ko ci sëru foofu mu jot ay sikarkat kon yàlla ma leen ko zikru yàlla ma ko sukku bi firi màndi cerono ngay gis mu tim ay ganaar di jooy te safut moom ganaar gi ceeb bi tàngoot ganaar gi may nekk du tàngoor a koy jooy du kaani du poobar ñu li xamante ganaar mooy dangay ngay matt di muuñ ganaar matt muuñ la tudd cerono matt ganaar di jooy lu ko waral waxoon na ci waxam ne am na wëllu yàlla yoo xam ne ñooy ay rajab yu la leen di tuddee waxtu wu nekk bu pire yàlla bi jeexee koo rek seen ko ñu sottee ko Cerno jege yàlla xam nga la doon jooy yonentu jooy na safaqatan jooy na xawfan jooy na rahmatan xeetu jooy ba la jooy na ko Cheikh Ibrahima ku gërul ay jooy la mais Cerno mbubam jooy ci bii bii dëgg-dëgg bu doon ku boola am na ci ñetti morso jooy na ci wéetaay jooy na ci mbooloo jooy na ci wasifa jooy na ci julli jooy na ci lekk jooy na ci naan jooy na ci teew jooy na ci far kon yàlla maye na ko mandi mais mandi ko doy waar la ca daganoon la ko bay ma ñes tagee woon ne ko mandi nga tujoo kaas bi wéqewoo yomb ci mandi nag mandi ba pare tujoo kaas bi nga doon naanee ñi nga togg wéqoo leen say wax drapé wut yàlla mayoon ne cerno mandi koo xam ne dafa ànd ak kamaal cerno moom moo ngay fekk suma teel muy jooy di jaayu di jooy di jaayu di jooy keroog buñ ne allahu akbar subhaana mu xëy bu xale jooyee mu xëy bu ko bu ko néew doole ñëwee mu xëy bu ab laajkat ñëwee mu xëy mësta mësta fàddu ba fàddu waaleel keneen lu mu fàddu fàddu fàddu boo ñëwee mu teew soo demee mu dellu fa mu nekkoon lu jafe lu bokk taalibe bi Oustaz Barham Diop waxoon na ne Cheikh Hassan Deme dafa dafa xam suufiyanke ba pare doog a nekk suufi ma wax xale yi mooy dafa man code ba pare doog a dawal Thierno dafa xam code ba pare doog a am ñu bëri illa man rahim rabbuk dañu am oto ba pare ci oto bi la ñuy jàngee dawal dimbal kii dimbal kii rek Thierno moom dafa xam code ba pare doog a ko di radiyallahu anhu ku bëri woon ay jooy la ko la wax na ne ci bëndaf sant yàlla teew naa sama kanam borom teewaay goo xam ne benn wali yàlla mosu koo teew ku amoon istixraar la ngay fekk muy téye per bi ñaari loxo dëngal boppam bi ci côté càmmooyam gëmmu Cerno bu dul kër gi di xaar du ko dégg mu fàttalil ma Seydi Muudul Xaali yi xam ne bu doon laasim ba pare bu talee loxo loxom bi boo sa baaraam da koy ndax tàngoor la radiyallaahu ku jëkk woon bii bi la kon mandi la woon mais mandi ku ànd wuri bu jotee ak ban sukuru Thierno dafa sant yàlla si sa sëriñ Mamoun mi nga xam ne borom basira bu sori la woon na science ndem la gis yàlla may ko teggin ci gannaaw bàyyi ba ci léppam dafa am teggin ci léppi bàyyi mu ne ñaan yim ñaanoon yàlla sëñ Mamoun mu ne amul si gën a Thierno lu mu ñaan yàlla yàlla jox na ko dafay xaar ñaanee bàyyi na asalaamaaleykum ba dañ koo sargal ñaari Thierno ñëw. ku mënoon sant yàlla sant yàlla nag ci xidma moo ngi taalibe yi xaloo juróom-ñetti fukki guddi yoo xam ne laajoo weexal xaloo ñeent yoo xam ne laajoo weexal dëkk ñi ñaa ngi sañ seega demee xew yow nga tëju ci jàkk ñeent fukki guddi juróom-ñetti fukki guddi loola dëgg-dëgg mbokki taalibe yi fa man balaxal matluuba fale yes en shakiran bàyyi mu ne am ku am li nga bëgg wéer sant yàlla kenn ci mën a mën am na dikru am na sukru na sukru bi mooy may goo xam ne waxtu nekk da yokk kenn ku ne xam ne bi ijaasa bu dund la dégg naa mel ne Makke Dakar moo wax ne siru yim jotee ci si dem la gis ne lum ci laal gis lañ ca waxoon mu am ci loolu yombul siru yaa fi mais bakkan moo dem ñu doonee rek naas bu mag mënta am gént ko rafet te lañ ci wax yëpp dëgg la mais amul ruuxaaniyatu wax naa xale yi mën na léeg-léeg nopp ñëw tëx bi am na nopp comme ñëpp mais dégg ñëwut silmaxe bi am na pax mi comme ñëpp mais gis gi ñëwut loo bi am na lamen comme ñëpp mais wax ji ñëwut sirru nekkoon na bu araf yi ñëwee rek mboot mu ñëw Cerno radiyallahu anhu fu fu arafam dem moom mbootam ñu àndal li ko may mooy Cheikh moo ko nangul liggéey na ba mu gërëm kon moo tax ma ne am na fikru am na sukru bi seen al muumal am na sukru bi seen al mojam am na duqru yàlla may na ko may goo xam ne pm bii donc du gënte ba paytam waxtu nekk ijaasaam nu du dañ di yaatu di yaatal ba péncam yàlla yàlla may na ko moo waxoon ne waqa al qabuulu ila yawm al qiyaamati yàlla nangu na ma ba bés penc te caroon waxantu borom isnu xaas la kon mbokki taalibe yi bu ñu yàlla mayee góor gii waaye góor gi lu mu yéeme yéeme da xool ki ko def góor suñu rakk léegi Cheikh Baye Ngom ci xasida Maam Abdou Niang bi Maam Abdou mi ngi tuddee Baye Mullil Foxooli li muy firi mooy ki nga xam ne moo weer kuuy kuuy dañoo sàngoo woon bàyyi leen sànki mujjlil Foxooli wax ju rëy la kuu yi fi woon mais dañoo nëbbu woon bàyyi mooy leen weer Cheikh Ibrahima moom mbokk taalibe yi wax na ay xale léegi ci kër ma ba man na leen war nañoo sëyru ci duru Tayba ba mooy firi lu tey bàyyi mënoon naa juddu dëkk bu tudd beneen tur mais Tayba la koy àlla tànnal bi Taïba jiitu ko ilaa yi Taïba sëriñ seen wax na ko léegi Taïba lu muy firi mooy lu tey wax ju tey jëf ju tey melokaan wu tey dëkk bu tey téere yu tey taalibe yu tey jaww ju tey barab bu tey bàyyi léppam Taïba la soo paree bàyyi juddu ci yow bëreel ba sa xool bi na nekk Taïba sa xol bi na tey te mbokki taalibe yi bu ci yéene kenn safar bu sa mbokk bu taalibe ñëw indi la caabi oto bu bees kontaan ci comme boo ko amoon ni ñu ci kontaanee bu ñëwee woon la kër gum tabax bég ci comme boo ko moomoon soo la wanee taalibe yu góorgóorlu bég ci comme boo leen yaroon su boobaa yow sa xol ba nekk na suuf si tey foog bàyyi juddu ci kon nuñ bëree mbokk taalibe ba dëkk bii kenn ku rëcc na bëree ba xolam doo tay ba soo ko defee dana am àdduna adduna am aljanay alaxira may kenn du la tere nelaw may kenn du la seene may kenn du tax mu sa xol bi ñëw ñu gi kon nañ bëri ñun ñëpp ba suñu xol yi tudd Tayba ndax bàyyi mën ci judd fu may tëjee nag mbokk yi mooy nañ sant yàlla bu baax wax naa xale yi toujours ma ne leen autoroute bii ñuy jaar te yàgg naa ko wax Ndakaaru soo fa jaar benn oto du la galan benn rab du la galan da ngay nu la neexee waaye boo demee ba xëy neex am na benn weñ bu ñu lay baare nga taxaw joxe addiya weñ nga yëkkati ko loola ba ko bàyyi waxee du tey bàyyi waxoon na ci njël ne tawaytu wa defal defalal naa leen autoroute bu jëm yàlla bi tawaytu lemal naa leen wa yombalal naa leen kon ñu ne bu nekkee ci autoroute bi daw xaatale di neex ñu siikar léegi sa xol bi dund nga jàngal salaatu faatiha yi yëg gis wàllu yàlla yi bëgg ci ñoom loolu tawetu ba saxaltu la buñ la béyoon yow dong sa bopp potalam baa ngi nii bi ko ngelaw li rombe yëngatuwul dafa wow mais garab gi den nekk moom bi ko ngelaw li rombee jaayu na ndax dafa tooy kii la tooyal nag mooy Cheikh Ibrahima kon ñi ngi daw ci autoroute mbokki taalibe yi mi ngi neex si aussi kenn ku ne xam na ne kenn ku ne junj dund na kenn ku nekk xam na ne ba ngay ñëwoon nekkoon nga keccaku yonti yàlla Muusaa wa waaye bi nga duggee ci géew bi ne ko Sadul Ba waxee kër gi du bët naa ngi rek kër gii du suuf si rek kër gii daf wamaa xubbu diyaari saxaf na xal bii doon ne bâtiment la mais ki fi doon noyyi la Cheikh Hassan Deme radiyallahu anhu bëgg nag bala maa laaj addiya lum néew néew néew mbokki taalibe war nañ fexe ba suñu sangu si bu ñuy def seen ga seen gasoil bi ñuy lebal jëwal sa sëriñ bu la siikaral waxtaanal la ñaanal la ak a jafe fekk mu xaddam boo xam ne mën na sa maaw su paree mën a waxtaan su paree mën a ñaan bu ko daal yomb de yàlla may ñu ko nag suñ sang ñu tudd yàlla tudd yàlla ko xam yàlla ma bëgg nag seen gasoil bi ñuy lebal ñëw nañ koo fay buñ paree ñu jox leen gasoil bu ñibbee koo xam ne lépp loo bëgg bërile su ko yàlla laajee na nga ko jox comme bëgg nañu alal yu bari pour ñu yokk Cheikh Ibrahima alal duñ liggéeyee lañ bee yàlla bi ma bëgg nag addiyee ji bala maa joxe rajo bi lu néew néew néew néew néew naa am bu mu amut cinq cent mille naa am bi te yaakaar naa su ma laajee cinq cent mille danaa ko jot kon sama ñaari junni ñëw na sëñ Ousmane gis naa ne fuñ dajee ren nag moom maa ko ndax ren ci seex rek oustaz Mari Ndaw ñëw na ma ne sa Ousmane Diagne waaw ñu ngi lay ndokkeel macha sa wàll léegi nag milliardaire ngay doon ku ma jox ñaari junni dool mbokki taalibe yi doomu néew néew néew waaw daayiratul fadli kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun lay tijil gëstaloodam sidi baram